ami internetu AG PROD TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax di dajawaat ak yéen rek ci seen info du jour waaye nag képp rek koo xam ni abonné goo ci seen bile ñu lay wax rek nga daal di abonné te daw rek activer li nga xam ni moom moo di euh, cloche de notification bi ngir rek ngeen di man di am suñu ay vidéo à bu leen fàtte di like vidéo yi ak di ko commenter ndax lu ci ama am solo la mardi 21 février 2023. daal di yemoo rek ak li nga xamante si moom mooy 143e anniversaire euh, Seydina Limaamu Laay rek ñu koy daal di màggal rek fële ca euh, Cambérène mu nekk nag appel boo xamante ni chaque année rek dañ koy daal di màggal fële ca diwaanu Cambérène ak euh, yu ni mel mu mel ni nag tey jii rek moom mooy 143e. fois bi nga xamante ne rek ñu ngi koy def muy anniversaire bi nga xam ne rek chaque année rek dañ koy daal di màggal ki nga xamante si nag moom mooy Seydina mu lay nag moom rek moo ko daal di euh, dooroon waaye nag guddi yi rek ñi nga xam ne ñoo di ay sëtam ak i doomam rek ñoo fi daal di toog rek fas ne woyal liggéey bi nga xamante ne rek daan na ko liggéeyal boromam subhanahu wa taala ndax rek ay mag la ñoo xam ni. Euh, suñu borom rek euh, moom moo leen euh, sàkkal boppam ngir rek ñu nekk ay messager yoo xamante ni rek dañ ko war a jëmale ci ñi nga xam ne rek ñooy doomu aadama yi waaye nag ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di jullit yi appel boobu nag fi mu doon nii nag ñu ngi koy daal di màgg rek fële ci li nga xam ne moom mooy diwaanu Cambérène yoo ak yu ni mel ay wakaam ak yëpp rek ñu ngay daal di boobu boobule appel nga xam ne des ni rek tey jii la rek ci mardi bi tombeek ak 21 février 2023 ay ngëneel ak i tawféex yoo xamante ne rek moom mooy daal di bàyyi foofu ci appel bële ngir rek nit ñi suñ fa demee rek ñi nga xam ne ñoom ñooy pèlerin yi rek euh, suñu daal di demee rek fa yéene dugg ca barab ba rek ngir rek def ay ñaan ak yu ni ngir rek seen aajo daal di faju ndax nag ki nga xam ne rek moom mooy. Seydina Limaamu lay nag dafa nekkoon nit koo xam ne ah, nitu yàlla la woon ba nga xamante ne rek suñu borom daf ko daal di may ba tax na rek nit ñi rek suñu fa daal di demee rek dañuy daal di àgg ca barab ba daal rek fas yéene tàll seeni loxo rek daal di ñaan suñu borom ci barkeb ki nga xam ne rek mooy Seydina Limaamu Laay ngir rek eh, seeni aajo daal di mën a faju ndax nag nit ñu baax ñooñu rek suñu borom su leen fi wàccee rek. am na loo xam ni moom moo tax mu wàcce ko ci kaw suuf ndax nag ñoom rek ay message lan yoo xamante ni dañu war a ñëw rek daal di jàllale rek ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo di jaamu yàlla yi waaye nag ñoom ñoo di ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di eh, taalibe yi fi mu toll nii rek fële ci diwaanu Cambérène rek mu ngi mel ni rek dëkk boo xamante ni rek ñëpp rek dañoo daal di génn rek fas ne màggal boobu eh, bis mu mel nag fi mu toll nii moom. ndam rek ak tawféex rek la fa daal gars yi di daal di eh, sàkkoon nit ñi nag ñu ngi ñaan rek ci yàlla ñu ñaan rek ngir rek li nga xam ni moom moo di diwaanu Sénégal jàmm daal di fii sax waaye nag jàmm njëkk fii ba pare rek jàmm daal di fii mujj mu mel ni nag fi mu toll nii moom euh, wax dëgg yàlla nag fële ca diwaanu Cambérène rek comme ni leen koy waxee rek mu ngay daal di euh, daal di sala ñëwoon ndax nag mu ngay daal di neex jàng yaa ngay jóg ziare daal di commencé euh, ki nga xamante si nag moom mooy xalif général bi nag daal di yëkkati ay kàddu yu am am solo rek daal koy jëmale ci ñi nga xamante si ñoom ñoo di taalibe yi waaye nag daal koy jëmale ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di sénégalais di ñaan ak jàmm ak salaam ci li nga xam ne rek moom mooy ci diwaanu Sénégal ngir jàmm daal di fi njëkk ba pare rek daal di fi mujj waaye nag ki nga xam ne rek mooy Seydina Limaamu Laay nag moom nag umpale woon rek moom moo waxoon li géej gi rek puusal rek randul rek ma daal di dëkk moo tax nag ñu daal di nekk fa nga xamante ni rek mooy ci diwaanu Wakaam Cambérène nag ak yi xamante ni moo di Yoof ak yu rek mu nekk nag kilifa diine goo xamante suñu borom daal di woon na ko may lool lool lool waaye ndax nag ay jaamu yàlla lañ yoo xamante ni seen dund yëpp rek dañ ko tax wéeru ci sunu euh, boroom ba tax nag li ñu am tey rek ñu daal di koy am mu mel ne nag kon appel boobule tey jii rek moom mooy 143e anniversaire bi nga xamante si ñu ngi koy fësal di ko amal rek foofu ci diwaanu Cambérène ak rek di ko daal di féete di def màggal gu mal noonu kon nag tey jii rek moom mooy 143e. Euh, anniversaire bi mu doon loo xamante ni rek lu am solo la mu mel ne rek téeméeri at rek ak euh, ñeent fukk ak ñett rek kon nag loolu nekkul loo xamante ni lu euh, ndaw la suñu borom nag yàlla na leen tas ci barkeem rek te daal leen di xare àjjana ma mel ne rek ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp rek suñu kilifa diine yi suñu borom rek daal leen di xare àjjana fii daw si ba pare nag daal ñuy tax ci seen euh, barke ndax nag ñoom nag dafa ñoo am solo lool fii ci diwaanu Sénégal ndax nag su dul woon ñoom rek sunu réew mi nag mën na deme neneen waaye nag dañuy sant yàlla rek bu baax a baax a baax ba ñu bàyyilee mag ñu mel noonu loolu moo gënoon a fes tey ci xibaar yi ñu jox leen dig daje bu beneen yoon incha allah.